ñi nga xamante ne ñoo constitué cette plateforme là on n'est pas de l'APR APR c'est un parti comme PDS ni mu nekkee parti mais ñun on est un groupe bi nga xamante ne dañu booloo nekk ay sénégalais kenn bokk benn parti ñu tànn benn candidat muy Amadou Ba loolu moo ñu boole fii kon la position des gens de l'APR bokkul ak suñu position ñoom c'est des positions positions partisanes parce que dañu bokk ci benn parti te tout chose égale par ailleurs ñun sax questionnement boobu la ñuy posé bu fekkee ñun ay jàmbur ñu ñooy défendre le candidat choisi par le Benno Bokk Yaakaar waa APR lu ñuy def lan la tudd. mais dama bëgg fàttali ne APR moomul Sénégal beneen parti PDS moomul Sénégal ñun dañoo am cër ci Sénégal te bokkuñu ci parti politique yi parce que lii lañ doon bañ moom moo tax mosuñu militer ci parti politique. parce que encore une fois y a une minorité de sénégalais yu nekk ci biir parti yi di def lu leen neex ci majorité bi ñun ñu toog di seetaan loolu lañ fi bëgg mu jeex. politiciens yi moomuñu réew mi moom moo tax ñuy tontu ci lool di leen wax ne waa APR li ñu wax ça les concerne mais ñun on parle au président de la république bi nga xamante ne c'est le garant de la constitution c'est le garant des institutions di ko fàttali que ne 2012 dañ ko dégg mu ne il peut pas accepter un report de l'élection présidentielle boobu Abdoulaye Wade moo nekk candidat bi jàpp nañ ne nag moom nitu kàddu la parce que man ak ñii bu ñuy nekk 2015 la ñu recevoir ne ne du defati du def deuxième du def troisième mandat day wàññi mandaam te bi mu ko jotee def na ko kon jàpp nañ ne ba léegi nii xelam demul si mu reporter une élection présidentielle parce que jàpp nañ ne c'est un républicain te il va respecter le calendrier républicain mais nag du tey ñu ñaax ko fàttali ko ko ndax dafa am ñoo xamante ne ñoo nekk ci wetam xeetu Thérèse Faye boobu du Mbow ak ñeneen ñi nga xamante ne jàpp nañ ne bu fi jógee seen àdduna tukki parce que politique la ñuy dundee ñun dundeewuñu politique. dañu bëgg nag wax jeunesse bi combat bi dépassé na Amadou Ba combat bi dépassé na Karim Wade parce que ñoom seen jëm yooyu Sénégal moo ñu ko gënal nañ teg Sénégal respecté ko que les institutions restent au-dessus des personnes et des partis politiques je pense que point boobu je pense que c'est clair.